mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya bu jëkk ci suuratul mumtaxina alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal di sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsagalaat ñu daje ci ab néegam su fiyee ni jàngaab téeréem suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam daan ñu ci bégal ci ne ñu mel noonu day yàlla dana wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka ya kawe ya ne fa moom ñu ngi ñaan yal na yàlla boole ci suñ jotaay bi ca itamit képp koo xam ne yàlla yombalal na la war nga baril di teewe lu mel noonu walilahi alhamd xam nañ ci suñu biir ñoo xam ne fu sore sori la ñuy jógee maa ngi duggandoo kenn ci xale yi mu ne université la jógee ngir teew si ko yal na yàlla fay leen jéego yooyee tey jii moom mooy ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru rajab maam yi dañ koy tuddee ndeyi koor mu tombeeg le 23 février ci 2022 incha allah Cheikh Ousmane dafa nekk ci tukki kon Alioune Sarr moo ñuy jëlal suñu bind bu jëkk mi ngi noonu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سني بروم جل وعلا مني يا أيها الذين آمنوا أيين نيغا خمنا دنين غم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بولين جل سمانون نيك سيني نون ngeen def leen ñu ngeen di féetewoo tulquuna ilayhim bil mawadda ngeen di sànni jëme ci ñoom ak cofeel wa qad kafaru bi ma jaakum min al xaq te ñoom day weddi nañu la leen dikkal ci dëgg yuxrijuuna rasula wa iyaakum génne nañ yonent bi génne leen yéen tamit te dara taxul lu dul an tu'minu billahi rabbikum mooy da ngeen a gëm yàlla mi seen boroom in kuntum xarajtum jihadan fi sabili waxtu wu ngeen génnee nag dem di jihaad ci saw yoon wabtigaa mardaati ak di sàkku sama ngërëm tusirruuna ilayhim bil mawadda ngeen di nëbb jëme ca ñoom ci ak cofeel wa ana a'lamu bima axfaytum wa ma a'lantum te man yàlla day xam naa lépp loo xam ne yéen a ngi koy nëbb ak lépp loo xam ne yéen a ngi koy biral di ko feeñal wa man yafaaluhu minkum faqad dalla sawaa sabil jëf jooju day ki ko def ci yéen réere na gën jaa digg doomu ci yoon in yasxafuukum yakunu lakum aada ñii di yéefér yi day suñ daje woon ak yéen dañuy nekk ñel leen ay noon wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatuhum bisu te daan tàllal jëm ci yéen seen loxo yi ak seen làmmiñ ya ci lépp lu ñaaw wa waddu law takfuruun te ñoom day dañ doon mébét yéen it ngeen weddi comme nañu weddee mi ngi noonu mbokku saar bi dañuy fàttali benn jamono ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund googee ñu xam ne mooy période bi gën a tedd ci histoire humanité yépp jamono ñaar fukk ak ñett yonent bi alayhi salaam woote asamaan ak suuf di jokkoo problème bu am suñu borom yónni jibril ci yonent bi alayhi salaam mu ñëw réglé ko loolu moo tax ña ko doon dund nekkoon ci xéewal gu rëy muy sahabatul kiram ba kenn mënu leen a dab gis ngeen ka nga xam ne nii mooy suñu xalifa ba di aboubacar ak omar ba yonent bi faatoo ñu ne ah nañ dem seeti ki nga xam ne mooy umu haani mi nga xam ne kat dafa nekkoon ci bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent daan ko ziyaar ba ñu àndee dem toog ci moom bi leen soxna si gisee ñu toog rek mu commencé jooy ñu ne ko soxna si yonent yàlla bi la nekk ci yàlla moo gën ci moom mu ne wallahi jooy ma yonent yàlla gi li may jooy rek mooy wax yu dagg na diggante asamaan ak suuf loolu moom loo ko jooyloo loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax doonte ni ne Sénégal ñu ngi waajal bis yu néew ne wax yu googu xëy wàccaat na ci benn ci doomu Sénégal yi yàlla def ko yonent yàlla inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ko mu ñaata yonent la ñu am Sénégal ala kulli xaal mbokk ñu xam loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam siñente na li ñuy tuddee sulhu Hudaybiya muy pacte ba mu fa siñenteeg yéeféer yi ñu ni léegi nañu bàyyi xeex bi fukki at yoo xam ne bu kenn xeex ak sa moroom giiri arab yi tamit képp koo xamee ne nii bëgg nañoo farag farandoog lislaam day farandoog lislaam ku bëgg farag waa màkka farag waa màkka ñi farag yonent bi ak islaam bu ñuy xeex yéen waa màkka amuleen droit dal seen ci seen kaw jurit ñi tamit waa màkka ak ña fa seen farandoo duñ leen attaqué ñu siñante loolu lépp te Hudaybiya bañ demee nag ba ca atum juróom-ñetteel ma ñii nga xam ne ci mooy ñaari at rek après pacte bi ñii nga xam ni benn giir goo xam ne dañ doon tudde bani Bakar ñoom dañoo farandoo woon ak waa Makka bani Xuzaa farak yonent bi alayhi salaam muy waa Madina ñuy xeex seen diggante normalement waa Madina waruñu ci woon dugg waa Makka waruñu ci woon a dugg xanaa atte leen waaye waa Makka yónni seeni jàmbaar ñu dem ànd ak seen mbokk yéeféer yi mi ngi noonu rey ñu bari ci farandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ni nii kilifa waa Xuzaa ga ñëw na ci yonent bi na ko wax ko nettali ko histoire bu ñu demee yépp yonent bi alayhi salaam na ko day maa ngi waat ci yàlla ne dinaa la dimbali fokk dana attaqué ji waa mag ndax noonu ñu dindee pacte boobu ñu ñu ñu violé ba nga xamee ni nii am na yonent bi waajal armée ne ñu waa attaqué ji waa makka mu ne yàlla xabaar bi yàlla na nga ko nëbb yéeféeri makka yi te loolu it mbokk xam ngeen ci wàllu guerre da ci am solo trop looloo tax ba yonent bi alayhi salatu wasalaam heure bu daan waajal benn guerre da ko daan nëbbe beneen masalan su bëggoon a dem Kaolack tey danaan saxaabi yi waajal leen ñu dem Saint-Louis waajal leen ñu dem Saint-Louis ndax xam ne ne dana am espion yu avertir waa Saint-Louis suñ demee ba jam ñaajoo nag mu dévier armée bi yóbbu leen Kaolack di fi yéen léegi mu ne yàlla xabaar bi yàlla na ko nëbb waa Makka waaye ñëpp xam ne ñu Makka la jëm bi loolu amee kenn ci julit ñi ñu ngi ko tuddoon Xaatib ibn Abi Baltata moom daal di bind benn lettre jox ko benn jigéen bu mu doon gis mu jëm Makka mu ne ko lettre bi fexeel ba teg ko ci loxo Abu Sufyaan soxna si génn na dem ba mu demee ba sori suñu borom yàlla mii def lu ko soob xamal yeneen ki bi ne ko sa waa ji day am na lettre boo xam ne ni bind na ko ma nga jëm ci waa Makka yeneen ki bu Ali ibn Abi Talib ak Miqdaad ne leen dem leen bu ngeen demee ba ci waadu xaax ñu mel ne rek tey ñu ne bu ngeen demoon ba jam ñaajo da ngeen gis benn jigéen bu war benn gileem di dem am na lettre bi mu yóbbu waa Makka indil leen ma lettre bi bi Ali ñëwee ñu dajeeg soxna si ana lettre bi bi nga yor mu waat witt ne yorul lettre ñu wër wër wër gisuñu dara miqdaad na waal yi luy pexe léegi mu ne ko luy pexe dañ koy futti def ko yaramu leen yonente bi alayhi salaam dañuy wax ne mi ngi bu ngeen demee place sàngam fekk ko fa ñu ñëw fekk ko fi mu ne mi ngi lettre pare yonent wax yonente bi di neen dañ koy futti def ko yaramu leen te la soxna si doog a firi ay lettam ak rab ni ñuy bëgg ni ñuy bëree karaw rocci lettre bi jox leen ñu bind ci man ki nga xam ne xaatib ibn abi baltata abu sufyan maa ngi lay avertir ne yonent bi alayhi salaam mi ngi ñëw ak arméem gis ngeen loolu bi ñu leen lettre wax ko yonent bi alayhi salaam ba ko yonent bi liiree rek Omar moom dina bëreet rocc jaasiyam daan na yàlla moom bàyyi rek ba dagg bab bi mu ne ko Omar bàyyi ko kii fekk woon na xare badr fekk woon na xare badr te lan moo la leer ci ne yàlla wax ne yéen waa yéen waa badr def leen lu leen neex rek baal lu ngeen def baal naa leen gis ngeen loo xamal loolu daal dina ko waa xaatib lii nga def ku lu lok yóbbu mu ne ko wallahi maa ngi seede ne yàlla kenn la yow yaa yonente yàlla bi waaye sa gaa yi nga àndal yépp dañoo am ay mbokki makka man awma fa benn mbokk bi may dem nag sama famille fa laa leen bàyyi awma ku leen défendre moo taxal ma bind lettre bi ma bind ko ngir waa makka xool ci loolu ba duñ ma yàqal samay famille ak sama alal ji ma fa bàyyi doonte ne ni ba loolu amee ci la nag borom bi wàcc aaya yi ngir dal ci kawam ak it lu mel ni bañu amati bi la yumi din suñ borom ne ay yéen jullit ñi bu leen jël sama noon ak seen noon di sànni ci ñoom ak cofeel te ñoom dañoo weddi yàlla weddi yeneen ci yàlla ñu dégg ci ñaari mbir mbir bu njëkk bi mbokk noonu yàlla fokk mu nekk noonu jullit mbokk noonu yàlla bu weddi yàlla ba bu lay rey lam nëbb ca xolam mooy def laa noonu yéeféer bëggul koy jaamu yàlla mi ngi noonu ñitug biddaa du bëgg ñitug sunna ila axiri ñaareel ba it suñu borom mu ne dañoo war a nekk seen noon te mooy julit dafa war a noonoo ak ka nga xamee ne nii mooy noonub yàlla te loolu moom lañ mujjoon jàng ci saaru mujadala ñu ngi noonu laa tajidu qawman yuminuuna billah wal yawmil axir yuwaadduuna man xaada allah wa rasulahu doo fekk mu kii gëm yàlla gëm àllaaxira pare di sopp koo xam ne wóor na ko ne kii noonu yàlla la noonu yonente yàlla même bu doon bàyyi bi ko jur wala doomam wala frère am léegi borom bi subhanahu wa taala ni ñoom weddi nañu diine ji ngeen yor ñoo génne yonente yàlla bi ñoom it yéen ñoo leen a génne lan moo tax loolu lépp tooñu leen leen jarul leen seen alal lu dul gëm gi ngeen gëm yàlla rek moo tax xajootuñu ak yéen ba génne leen waaw léegi nag yéen naka ngeen di wëlbitoo koo nag jamono bi ngeen di nekk di jihaad di sakku sama ngërëm ngeen di nëbb ak cofeel di ko jëme ci ñoom ngir intérêt bi ngeen cee bëgg xam leen de kii def lii réer na gën jaa màgg ci réer te yoon ba nga xam ne nii moom la waroon tege xanaa xamoo ne lettre ba bu ngay bind même bu doon dañoo dajeeg yow ci xeex dañ lay rey di nga noonu même bu doon dañoo dajeeg yow ci xeex sa lettre boobu nga bind ngir sakku cofeel dara la lu dul jëriñ yasxafuukum yakunu lakum aada borom bi subhanahu wa taala ne yéeféer lenn dong dong mooy tax mu gërëm julit mooy mu nekk yéeféer comme moom waaye leneen loo ko defal leneen loo ko mën a jàppalee maadaama yaa ngi nekk ci pas-pas bu sell yéeféer mënulaa gërëm mi ngi noonu duñ la mën a gërëm lan tarda ankal yahud wala nasara xatta tattabia millatuhum lu dul da ngay dem rek mel na ñoom moo tax borom bi ni wa waddu law takfuruhun mi ngi noonu cheikh ali
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم
barakallahu fikum suñu borom mu ni lan tanfa'ukum arhamukum wala awlaadukum du leen jëriñ mukk seen mbokkoo gi ak seen doom yi yowma alqiyamati yafsilu baynakum yowma alqiyama bu ñëwee day des na dana teqale la nga xam ne mooy seen diggante wallahu bima taamaluuna basir te yàlla lépp lu ngeen di jëf mi ngi nekk di ko gis qad kaanat lakum uswatun xasana doonte ne nekkoon na ñel leen royukaay bu rafet fi ibrahima wallazina ma'ah ci ibrahima ak ña àndoon ak moom is qaalu li qawmihim jamono ba ñuy wax seen xeet ba inna buraa'u minkum ay waay ñun day dañ nañ ci yéen wa mimma tacbuduuna min duni illah ak lépp li ngeen di jaamu ci du yàlla kafarna bikum weddi nañu leen wa bada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaa feeñ na dana feeñ suñu diggante ak seen diggante ak noonu akok merewoo abadan xatta tu'minu billahi waxda loolee dana nekk ba faw xanaa lu dul ba ngeen di daal di gëm yàlla kenn kese illa qawla ibrahim xanaa lu dul waxi ibrahima ja li abihi ñel baayam la astaghfiranna lak bi muy wax baay ba ay danaa la jéggalul yàlla wa ma amliku lak min allahi min shay donte ne nag moomuma ñel la ci lu bawoo ci yàlla ci dara rabbana alayka tawakkalna e yàlla ñun dey yow dong ci yow la ñuy wékku wa ilayka anabana ci yow dong la ñuy dellu wa ilayka almasir ci yow dong mooy mujug lépp lu mën a doon rabbana ay suñu boroom la tajalna fitnatan liladina kafaru bu ñu def mukk fitna ñeel ñi nga xam ne dañoo weddi waxfir lana rabbana yal nag ñu jéggal yow suñu boroom innaka anta al azizu al hakim yow yaay ki not lépp sa kattan gi yaay ki xereñe ki mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax ne doomu aadama lii nga xam ne mooy sa intérêt yi mbokk ak sa intérêt njaboot bu mu tax mukk mu yàqal la alaxira la yàqal mukk sa alaxira comme erreur bi xaatib ibnu abi baltate def te loolu njaboot googee buñ demee alaxira dañuy teqale seen diggante ma bis boo xamee ne nii benn bakkan du jëriñ morom bakkanam dara bal njaboot ga sax dañuy dawante seen diggante ca loolu ndaw yi bàyyi ci xel bu baax da ngay gis ay ndaw yu engagé wu sur le plan politique, sur le plan sport, plan ut liggéey loolee la nga xam ne mooy seen jubluwaay buñ bëgg même bu ñuy jog gi seen kaw diine di jàll it nañ salfaane seen diine delloo gannaaw seen diine ngiree lañ bëgg ci àdduna ñu am ko mbokk képp ku jënd sa diine àdduna boo jotee àdduna perte nga boo ko jotul nag waxi noppi perte nga ñaari yoon su ko defee ñuy bàyyi xel bu baax a baax mooy xam ne suñuy priorité mooy suñu diine sahabatul kiram yi ñuy jàng di leen roy dañoo bàyyi woon seen léppi àdduna dëkk yañ juddoo woon miin ko bàyyi fa seeni tool bàyyi fa seen alal bàyyi fa seen njaboot ngir rawala ji seen diine looloo tax ba yow ndawal julit moytul lépp lu la àdduna di la tàllal jëme ca te pal yi ak alal ji ak lu mën a doon bu dee loo xam ne nii da bala nga caa jot da ngay jalgati sa diine nga laway bu mu la ko jaral mukk borom boobu subhanahu wa taala mu ne nag lépp li ngeen di def maa ngi koy gis allahu ma taamaluna basir lépp lu ngeen di def maa ngi koy gis ey waay yéen ñeen na leen royukaay bu rafet ci ibrahim mbokk ibrahim alayhi salaam da ngay gis mboolem diine ñoo ko màggal maa ngi dégg ci internet bi lenn ci dëkki arab yoo xam ne dañoo lënkaloog israil bokk na lu ñuy feeñal mooy diine ibrahim ngi noonu religion d'abraham boo xam ne day ëmb yahud yeeg chrétien yeeg juif yépp ñu tudde ko loolu ñuy wóote woo diine diine ibrahim mbokk ibrahima alayhi salatu wasalaam suñu borom yàlla lam ñu seedeel ci ne dañoo war a def dañ ko jël comme roy royukaay moom dafa deñoon complètement ci képp koo xam ne da ngay bokkaale ca bàyyam ba la commencé te mooy xaatib bii nga xam ne def na erreur ngir sauver ay mbokkam tax muy bind lettre mu ne xanaa xam ne Ibrahim ca bàyyam la commencé woon moom ba ba muy wax bàyyam ba ak xeetam ñun dañ nañ ci yéen ak lépp lu ngeen di jaamu ci lu dul yàlla muy tawxid bu mat sëkk waxumaa dañ nañ ci yéen waaye noonoo nañ sax ak yéen yéen ñi doon bokkaalekatu yàlla noonu nañu ak yéen noonu ak seen xërëm yi mi ngi noonu weddi nañu leen te noonoo googu du deñ suñu diggante lu dul ne da ngeen wëlbati ko gëm yàlla kese te loolu it mooy li ñun wax sànq mbokk jullit day nekk noonu bi yéeféer mi ngi noonu looloo tax bu ñu daje woon ci shuruti jihad ñoom ñu nangu nangu ñu dellu gannaaw soo dajeeg moom da nga koy rey lu doon sa bàyyi la wala sa doom wala ku mën a doon comme Abu Ubayda ni mu reye baayam mi ngi noonu mu ne kon roy leen ibrahima ci loolu xanaa lu dul wax jëm doon wax baayam ne ko danaa la jéggulul mi ngi noonu loolu mbokk dafa am ay sahaaba sahaaba yoo xam ne bi seen mbokk yi dee ci kéeféer bàyyi yaag soxna yaag yooyu ñu ne ah ibrahima waxoon na papaam ne ko la astaghfiral na lakk mi ngi noonu mi ngi noonu danaa la ñaanal yàlla jéggal waaye suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñu wax beneen saar ne فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم دون ديك بايام دناكو جيغلول فك باي بانغي دون مي كرك با باي با ديك كيفر لا فاري سي موم لوليت am nga dëkkandoo yéeféer baayu yéeféer doomi yéeféer tànk ñi ngi dund man nga leen di ñaanal yàlla ñaan la jéggi leen yàlla yërëm leen yàlla jubal leen waaye bu ñu dee ak kéeféer googee deñal ci ñoom complètement tabarra minhu borom boobu subhanahu wa taala nag ne kon bu ñu rey ibrahima ci ñaanal wayjur bu dee waajur ba daa dee borom boobu ni ibrahima lu mu waxoon moo ko xeetam yàlla ñun dee ci yow dong la ñuy wékku ca mbokk julit mi ngi noonu ci yàlla dong ngay wékku bi ngay génn sa kër léegi ba fàttewul wax nga bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ci yàlla la ñuy wékku lu tax ndax yow yàlla bi dala da ngaa doyloo yàlla bi am koo xam ne leneen la doyloo déedéet mbokk yàlla kese pexe kattan ci dimbali ci aar ci yàlla kese lay jóge ku wékkuwul ci yàlla yu wékkuwoo ci dara mi ngi noonu loola tax keroog xasootu uhud ba yàlla nattoo yi julit ñi julit ñi daw ba ñu dawee abu sufiyaan jàpp ne am na victoire moom ñu mu àndal ñu nekk ca gannaaw montagne ba daa di ne naka mu tey day xam ngeen ne réccu ngeen ci wax bu gudd waaye bokk na ci wax dem doon wax mooy lana uza wala uza lakum ñun dañoo gëm uza yéen nag gëmu leen tus comme ni ñu wax ibaadu yi tey ñooñu gëmuñu dara yaa ngi dégg lana uza wala uza lakum yonente bi ndax naa du ngeen ko tontu ñu naa luñ koy wax mu ne nee leen allahu mawlana wala mawla lakum ñun yàlla mooy suñu féete ci yéen amu leen ku ngeen féetewoo mbokk doomu aadama koo mën a féetewoo ci dul yàlla du dara na doon yonent bu nekk ci bàmmeel la na doon jant la na doon weer la mook micro bi ñoo yem képp kenn dong mooy am péete muy ki féetewoo yàlla kenn dong mooy am ndimbal mooy ki yàlla dimbali moo tax yàlla ci yow la ñuy wékku te it ci yow la ñuy dellu bu ñu defee bàkkaar ci yow la ñuy dellu suñu yaakaaree ci yow la ñuy dellu bu ñuy ñaan ci yow la ñuy dellu lépp lu ñu ittewoo ci yow lay deñ ila ilayka anabna te it gëm nañu lu mu yàgg yàgg yàgg bis dana ñëw ci yow rek la ñuy mujj dem ci yow rek la ñuy mujj dem te loolu it di mbir boo xam ne mbokk nañ ci bàyyi xel mujj ca yàlla mën naa jóge fu nekk yàlla jox na ma ñaari information yu kawteef benn bi Sénégal gépp xam nañ ko mooy président Erdogan ki nga xam ne mooy garde corps principal am ca fañ doon inauguré stade bi dafa la dee di dégg ngeen loolu day fa la dee gis ngeen koo xam ne dafa jóge turquie ba fii ngir garder président de la république ñëw ba fii suñu borom yàlla jël ko ci crise cardiaque mu dee waaye loolu di kaw fa kan moo xalaatoon ne kii day ñëw pour dee si Sénégal gis ngeen ñaareel bi suñu mbokk yooyu di génn xuruj am na ñu ma ci seet si ci xanaa ñetti fan lay doon wala maximum ñeenti fan kenn ku ñu àndaloon ki ma doon nekk li histoire bi moom Arabie Saoudite la jóge ki ki ki may wax nag moom Pakistan la jóge mu ne nekk nag moom 15 jours dañoo dem Ndofane nee na fi ñuy jullee gee ci dernier rakka bi fi ñuy taaya bu ñu rek la daanu ñu yëkkati ko dee na yoof gi lañ ko suul kii mi ngi jóge Pakistan mi ngi noonu kii jóge Turquie gis ngeen kenn ci ñoom xalaatul woon da nga ñëw di dee si fii kon doomu aadama di bàyyi xel almasir mooy man fan la samay bis di jeexe kañ lay dellu ci yàlla loolu ku nekk ko war a bàyyi xel borom boobu nag mu ne ay yàlla yàlla bu ñu def fitna ñeel yéeféer yi bokk ne fitna ñeel yéeféer yi moo yéeféer yi am ndam ci kaw jullit ñi ba jullit ñi seen xel neexul jàpp ne ñii kat ñoo nekk ci dëkk wala yéeféer yi not jullit ñi daa di leen fitnaal comme na ngeen dégg asaabul buruud na lazina fatanul muminin ray leen rayin bu ñaaw yàlla yàlla boo may yéeféeri ndam ci suñu kaw ba ñu nekk fitne ci ñun yàlla yàlla nag ñu jéggal xam nañ ne yow doo nga yaay al aziz képp koo mën a koo jàppale kenn du ko noot yow it yaay al hakim kon mi ngi noonu cheikh ousmane cheikh ali
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون بارك الله فيكم suñu borom mu ni لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة nekk na ñeel leen ca ñooñee day muy ibrahim ak ñam àndaloon royukaay bu rafet liman kaana yarju llaha wal yawm al axir ci képp koo xam ne daa yaakaar payug yàlla ak la nga xam ne mooy payug alaxira wa man yatawalla koo xam ne dafa dëdd wane gannaaw fa inna allaha huwa al ganiyu al hamid sa borom yàlla mooy ki woomle ki mooy ki yeyoo cant yépp asa allahu an yajala baynakum wa bayna alladina aadaytum minhum mawadda mën na am nag yàlla bu ko soobee mu def seen diggante ña ngeen noonante wal yi di cafeel wallahu qadir ndax yàlla ko am kattan la wallahu ghafurur rahim te yàlla mooy ki jéggalaate ki yërëmaate la yanhaakum allahu an alladina lam yuqatilukum fi ddin yàlla nag terewu leen ci ñi nga xam ne xeexuñoo gën ci diine ji walam yuxrijuuka min diyaarikum te génnewuñu leen ci seen dëkkuwaay ya an tabarruhum ci ngeen leen di laayi biir wa tuqsitu ilayhim di maandu jëm ci ñoom inna allaha yuhibbu almuqsitin yàlla day day bëgg ñi nga xam ne dañuy maandu di digg doomu innama yanhaakum allah ña leen yàlla tere kay an alladina qaataluukum fi ddin mooy ñooñu nga xam ne dañoo xeex ak yéen ci diine ji wa axrajuukum min diyaarikum génn leen ci seen dëkkuwaay ya wa zaaharu ala ixraajikum daa di dimbali ñeneen ci génn gañ leen doon génne an tawallawhum ñooñu day ter nañu leen ci ngeen leen di féetewoo wa man yatawallahum fa ulaika hum addaalimuun ku leen féetewoo ñooñu day ñoo bokk ca ñu tooñ ña mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ne nekk na royukaay bu rafet ci ibrahima ak ña àndoon ak ñoom ci ki nga xam ne daa bëgg àllaaxira ca niñ ko waxe woon mboo ko xamal ni dund àdduna dund gu gàtt la suñ demee àllaaxira képp kenn ci ñun la koy itteel mooy boppam ku nekk la muy wax mooy nafsi nafsi looloo tax sa yaay bu mu tax nga yàq sa jaamu yàlla sa baay bu mu la tax a yàq sa jaamu yàlla njaboot gi buñ tax nga yàq sa jaamu yàlla fexeel ba képp koy jëflanteel ci ñoom nga jëflanteeg ñoom ca la neex yàlla su neer génn la neex yàlla nga la ko fa ñukk mi nga noonu loolu moom mooy ka nga xam ne dafa am xel loolu lay bëgg ndax alaxira mooy jubluwaayam borom bi nag nee na moom ku wedd ku wëlbati ko wane gannaaw bàyyi fi lii mu wax moom ku woomle la te it jurit loolu la war a gëm sunu borom yàlla mbokk jaamu giñ koy jaamu jëriñu ko dara ñàkk koo jaamu loolu ko ci dara ñëw na ci hadisul qudsi nit ak jinne yépp buñ meloon ne muhammad alayhi salaam dara la yokkul ci nguurug yàlla gi nit ak jinne buñ meloon ne shaytaan dara la yokkul ci nguurug yàlla gi donte ne cant yépp moo ko yeyoo mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala da ngay gis ne ay xéewalam kenn mënu koo peeg kenn mënu koo peeg te ji ñun ñi ngi toog nii ñu ngi dégg ku faatu ñu ne lan ma ko remi crise cardiaque crise cardiaque mooy lan mooy moteuru cardiaque bi moom moo perturbé donc nam waroon liggéey liggéeyu ko daanaka quatre minutes mën nga cee dee waaw kon ñun ñi ñëpp deewuñu lan moo tax mooy kon suñu xol yaa ngi tëgg normal am déet deret yaa ngi daw normal loolu mbokk xéewalu yàlla ndax ma nes na koo fay xéewalu dégg xéewalu bët wér gi yaram buñ la mayoon milliards yi ci kaw suuf yépp nga moom ko wallahi da ngay gis ne la gën a néew ci nattu wér-gi-yaram bu bu ñëwee da nga bëggoon joxe lépp ca defee sa wér-gi-yaram kon yàlla moom mooy aji cant ji borom bi nag dañuy wax ne noonoo leen ak ñey noonu lislaam heure bu ma neexee nag noonoo googee man yàlla mën naa ko soppi ndax yàlla mooy kii jéggalaate ki yërëmaate te loolu la mujj defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam bokk na lu ko yàlla dimbilee li ëppoon ci ay noonam dañoo mujj nekk ay ay ay ay soppeem tey jii xaz xazu uhud boobu ma leen wax muy xare uhud ki ko jiite woon mooy Abu Sufyaan mu nekkoon buuru Makka jamono jooje général d'armée bu gën a mag da nekkoon muy Xaalid ibnu Walid gis ngeen ñoom Ikrama ibnu Abi Jahl mi ngi noonu nee na ñoom ñoom Amr ibnu al-As ñoom Wahshi ñooñu nga xam ne nii ñooy kàngami makk yi ñoom ñépp ci lislaam lañ mujj dee ñoom ñépp dañoo mujj tuub dugg ci lislaam ba dañ naan la ikrama ba yonente ba déggee xabaar ne ikrama kat nee na day tuub si ba mu ko siine muy ñëw dafa jóg daw gàttanu ko gis ngeen mi ngi noonu waxshi nga xam ne nii moo rey saydi shuhada ila axiri kon su ko defee suñu borom yàlla moom mooy def lu ko neex waaye nag jiitu loolu di am muy wane ne kon dañoo war a woote ci yoonu yàlla rek ñun waa ji lu mu bon bon bon nañu continuer woote ku neex yàlla yàlla jubal ko heure boo xamee ne it am nga ku nekk sa responsabilité na doon njaboot la na doon ku mën a doon dee ko ñaanal fu mu mën a toll ndax kat yàlla ku ko neex mu wëlbatiku borom bi nag ne terewuma leen ci ñi nga xam ne mosu ñooy xeex ak yéen génn wuñ leen seen kër dimbali wuñ kenn ci yéen ci ngeen leen di laaye biir ndax bu dee aaye bii nga xam ne nii dañ koo romb rek ak yu mel ne moom day mel ni yow julit foo dajee ko yéeféer rek wan kook noonoo suñu borom yàlla mu ne déet du noonu ñi nga xam ne nii feeñi lu ñu seen noonoo contre yéen yéen it bu leen feeñal noonoo contre ñoom man ngeen leen laaye biir diggu doomu ci ñoom ci wàllu adduna te loolu la ko waraloon mooy asma bint abi bakar yaay ji yéeféer la ñëw na ca ne da koy seet si bi mu ñëw mu ne ko deet toogal foofu te buntu kër ga dem ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko sama yaay de moo ñoon dama seet si ci ab yéeféer la aaya yi wàcc suñu borom ne yéeféer yi ñi nga xam ne xeexuñu ak yéen amul genn noonooguñ leen def ñu mel noonu mën ngeen leen laayi biir diggu doomu ci seen biir ndax yàlla dafa bëgg ñuy diggu doomu falilahi alhamdu mbokk julit islam li tax tey mën nga wax quatre vingt dix pour cent ci ñi dugg ci lislaam jihaad dugalu leen ci la leen ci dugal mooy comportement bu rafet bu ñu gis ci julit ñi daal di tuub dugg dugg ci lislaam loolu it moo tax ba boo dëkkee ay yéeféer chrétien la ñoom lu mu mën a doon yow julit won leen melokaan yu rafet day leen woo ci lislaam lu baax di leen ko defal bañ a xemmem lislaam ba dugg ci biir lislaam ngir ngir yow loolee da ngay gis ni suñu borom yàlla loolu la ñu sant borom bi mu ne nag ñan laa leen tere ngeen di am cafeel ci ñoom mooy ñi nga xam ne dañ leen di xeex loolu bari na ay poche boo demoon tey jii lu mel ni Israël gis nga la ñuy def suñu mbokk palestiniens yi xeex boo xam ne ni bu feeñ la ñu mel noonu kenn amul droit di am cafeel ci ñoom ci képp koo xam ne day xeex jullit ñi wala kuy dimbali kuy xeex jullit ñi yow jullit benn njëkk wala benn baax amoo droit di ko def ci ñoom borom boobu subhanahu wa taala ne képp ku féetewoo koo xam ne wóor na ko ne pexem yépp mooy xeex lislaam ba pare yow ngay am ak moom cafeel xam ne ñooñu nag ñooy ña nga xam ne ñooy tooñkat ya mi ngi noonu kon cheikh ousmane cheikh ali
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون جزاكم الله خيرا سني بروم yaa ayuha alladina amanu ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ida jaakum almuminatu muhajirat su leen dikkalee ay jigéen ñu gëm doon ñu gàddaay famtaxinuhunna ngallawaay ñooñu nattu leen leen seetlu leen leen allahu aalamu bi imaanihin yàlla moo gën a xam ca seen ngëm fa in alimtumuhunna muminat su dee ne da ngeen leen a xam ne ñii kat gëm nañu fala tarji'uhunna ila al-kuffar bu leen leen delloo mu ko ca yéeféer ya laa hunna xillun lahum ñoom daganuñu nekk soxna yi yéeféer ya wala hum yaxilluuna lahunna yéeféer ya daganuñu nekk borom kër yi soxna yi baax yi wa aatuuhum ma anfaqu delloo leen yéeféer ya lañ dépensé woon ca can ya wala junaha alaykum an tankihuhunna yéen jurit yi it su boobaa da ngeen am benn ngant ci takk soxna yooyee ida aataytumuhunna ujurahunna su dee jox ngeen leen seen can ya wala tumsiku bi isamil kawafir yéen tamit bu leen jàppoo ci pas-pasu sëy di ko siq ak ay yéeféer wasalu ma anfaqatum laaj leen la ngeen dépensé woon ca soxna ya wal yasalu ma anfaqu yéeféer it nañ laaj lañ def lañ dépensé ca soxna ya zalikum xukmullah yaxkumu baynakum loolu day mooy atte bu yàlla muy atte seen diggante wallahu alimun hakim yàlla aji xam la yàlla aji aji xereña la wa in faatakum shay'un min azwajikum ila alkuffar su dee def leen a faat lenn ci seeni soxna jëm ca yéeféer yi fa aqabatum ngeen nekk di gañe ñeneen topp leen ba gañe leen fa aatu alladina zahabat azwajuhum misla ma anfaqu jox leen ñi nga xam ne seeni soxna daa dem lu tonn lañ dépensé woon ci seeni can wattaqullah te yéen ñëpp ragal leen yàlla allazi antum bihi mu'minun yàlla mi nga xam ne moom ngeen bokk gëm mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy wax ba muy siñeenteeg yéeféeri makka ya ca Hudaybiya lu ñu siñeente woon ak ñoom mooy képp ko dawee makka ñëw ne julit la yéen yow yonent bi da ñu koy delloo yéen na ko dawee ci yéen ñun duñ leen ko delloo gis ngeen duñ leen ko delloo yonent bi siñente ak ñoom loolu ñu fekk woon ba ñuy jàng saar boobee ca suratul fath xamoon nañ waxoon nañ ca lu lu bari ala kulli xaal loolu lañ siñente woon léegi nag mu am benn problème bu am ñu toog Madina rek ay jigéen gàddaay Makka daa di daw ñëw si Madina ngir rawale si seen diine bokk na ko leen jiite woon Umm Kalsum ibnu Abi ibnu Uqba bokkoon ci aristocrate Makka yi ñu dawee Makka ñëw léegi nag lan mooy pexe ñii ay jigéen la lu ñu def te la suñu borom yàlla wàcce aaya yi daa ji ne ay yéen jullit ñi bu dee ay jigéen dañoo ñëw gàddaay ñëw ci yéen ngal la waaye na ngeen leen nattu ba xam ñii diine leen tax a jóg nattu leen leen ba xam diine leen tax a jóg su ngeen leen nattoo ba xam ne ñii dara yëkkatiwu leen lu dul diine su boobaa bu leen leen delloo yéeféer yi ñu dégg ci mbir yu màgg mbokk diggante Makka ak Madina ëpp na quatre cent kilomètres te yow mi fay jaar gis tali yi niñ ko defaree déedéet ñoom dañ daan yéeg montagne yi dagg xur yi pendant quatre cent kilomètres ay jigéen di ko dox ngir rawal a ji seen diine mu yéem la lool waaw loolu nu mën a nekkee lu mën a nekkee da nga da nga déglu information rek am na jigéen ñuy jóge fii traversé Mauritanie traversé Sahara dugg Maroc dugg Libye dem frontière Espagne ay bal réel ñoo leen di xaar pour dugg Espagne am déet damaa jëlee la ay góor de ay jigéen laa wax ñoo xam ne dañu am sax doom ci yoon bi rek lu ñu mën def nañ dugg Espagne jàpp ne mu dugg Espagne dañu am dara looloo taxit mbokk doomu aadama la mu bëgg dara mënul dox diggante mag moom gis ngeen loolee kon muy benn ñaareel bi it li yàlla ne nañ leen nattu mu nekk benn fitna bu rëy boo xamee ne nii mbokk yi ñu bokkal benn groupe imam boo xam ne xëy na imam yu bëri ñu nga ca ci ñi ngi xalaat problème boobu bokk na suñu xalaat ci fan yi ca mooy nit ñi jóge Europe ñëw di takk si suñ doom yi di leen buub di yóbbu mbokk loolu di phénomène bu grave tey boo ne moon tey rawatina petite côte beeg yooyu famille bu fa amul goro tubaab rek jàpp nga ne tekki woo gis ngeen mi nga noonu ba mbir bi mujj na jéggi dayoo ala kulli xaal mbokk jullit kii jóge fële ne daa bëgg suñu doom premièrement yéen ñëpp xam ngeen ne doomu jullit bu dem lënkaloog tubaab ba mu ne bëgg na ko ba day tuub kookay du xamul diineem diineem ñoru ko am déet waaye képp doomu jullit boo xam ne diineem ñor na ko du yegg foofu tubaab boobu nga ñëw xaw ñëw ne moom dafa bëgg suñu doom dafay daf dafay tuub pour lan lu tax muy tuub parce que dafa bëgg a takk suñu doom mbokk loolu ndax doy na nu ñuy tuubee nga ne ko tuddal baati seede yi mu ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah julit la ñu ne waaw may ko suñu doom ndax loolu mbokk wóor na wallahi mbokk julit ñun ñëpp d'accord nañ ci ne jullit bu tuub dagan nañu may ko doomu julit waaye daf suñu borom dane fam tihinuhunna dañ leen nattu ba xam xanaa kay dañ ko xool ba xam kii tuub gii dëgg la ci moom wala du dëgg ci moom ana ñaata lañu gis ci ay doom yoo xam ne doomi julit seen bàyyi doon ay kilifa yi diine ñu seeg ay tubaab bañ demee génn ci diine complètement wallahi du jeex du xaaj témoignage yu dul jeex du xaaj ba ñu miin jàkka bi ak suñu doxalin man da yàlla dogal na ma dogal na fukki at yi du ëpp na fukki at sax yoo xam ne képp ku ma indil sëyub kii day tuub ñu may ko soxna dama naan déedéet ci li ma mujj fàttali ko ñeenti sëy rejeté naa ko ñeenti sëy rejeté naa ko ci loolu day tuub mën a d'accord tuub gi moom nañ ñëw bismillah ñu tuub waaye dañ koy tuub ñu may ko suñu doom déedéet abadan loolu sëy boobu du ma ko fekk mukk su ko defee mbokk julit waxuñu bu ñu may tuubeen doom tubaab ak nit ku ñuul nag laa ci yemale na doon tubaab ak nit ku ñuul laa ci yemale doon siiri lam jooloom laag képp ko mën a doon képp koo xam ne nii daal dafa jóge fële ne day tuub falilahi alhamd waaye yéeféer bëgganteeg doomub julit mu ñëw ne may leen ma ko ñu ne duñ la ko may mu ne ah nu may def bañ may ma ko da ngay tuub baata seede mooy làngam xanaa ñu def lu ñu mag suñu mag sëriñ jaay day dee na képp ku ñëw daal ne daa bëgg suñu doom lay tuub nañ la ko demal jongi boo ñëwee ñu ñu may la ko waaye waaye mbokk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu ci groupe imam yooyu may wax am na ci benn imam buy nettali ne xam na benn góor gu baax ci Côte d'Ivoire Houphouët Boigny daj na lu nekk pour takk doomam mu ne ko monsieur le président yéefér nga du ma la may sama doom yaa ngi dégg loolu ñu bàyyi ci xel mooy kon su may wax ci nangoo tuub ñu may ko danger la waaw ana kii dem séyeg yéeféer nag ak a bari suñu doom yoo xam ne ñu ngi séyeg yéeféer yoo xam ne tuub bu ñu sax loolu c'est dangereux na ngeen xam ne it suñu borom dane daganul jullit di yor pas-pasub ku dul ku dul jullit heure boo demee ba sa soxna si génn ci diine keroog la sëy bi tas heure boo demee ba sa jëkkër génn ci diine keroog la sëy bi tas wala tumsiko bi isamil xawaafir borom bi nag dellu ci atti sahaaba ya mu ne jigéen ñooñu daw ñëw madina laaj leen seeni jëkkër lu ñu dépensé woon ci ñoom ngeen jox leen ko su dee daa am soxna julit bu daw laaj leen seen can ñu delloo leen ko lii mooy atteb yàlla ci maalu te ca it mbokk lépp lu jëm ci wàllu alal suñu borom daa bëgg ñu maalu diggante géefee mi ngi noonu delloo leen seen can ñoom ñu delloo seen can julit du sëy ak yéeféer lu dul la ca yàlla génne la ca yàlla génne mooy julit boo xam ne nii góor la dagan na mu takk ku am diine bu jóge asamaan muy chrétien wala juif ñii yàlla may na ñu takk leen seeni doom waaye daganul ñun ñu may leen suñuy doom bu ko defee ñoom ñu ne mais loolu injustice la pourquoi ngeen di takk suñu doom te du ngeen ñu may suñu doom tontu li mbokk lu yomb la mooy ñun suñu doom ñun ñun dañoo gëm seen diine gëm seeni yonent ca yéen gëmu leen suñu yonent jullit bu weddi isa yéeféer la am déet te yéen gëmu leen suñu yonent nan la ñuy jëlee doom bu jullit di kamee koo xam ne gëmul ab yonentam te ñun ñi takk seen doom nag ñun dañoo gëm suñu yonent gëm seen yonent yàlla isa yaa ngi dégg loolu ca tontu yi gën a gàtt ala kulli xaal suñu borom mu ni mooy ki xam mooy ki xere ñi am nag beneen atte boo xam ne ci jamono sahaaba yi la valable woon mooy képp koo xam ne nii dafa dawe ci jullit ñi soxna dem dellu ci yéeféer yi ngeen laaj leen can ngeen bañ bis bu ngeen xeexee ay yéeféer ba gañe leen du ngeen jëkk a gañe ci ñoom xool leen lu toll ne can ba ka soxnaam daw ngeen delloo ko loolee ca ngeen bokk ragal yàlla mi nga xam ne moom ngeen bokk gëm yéen ñëpp kon lii mbokk moom mooy saaru moom tahina di saar bu ñuy woo jëme ci fagaru jullit mbokk du ku ñuy gaaw a nax jullit du ko ñuy yóbbaale lépp lu muy def dana ko seetlu waaye jëme it ci maandu ci mooy maandu ci képp koy jëflanteel même bu doon ab yéeféer la mi ngi noonu yal na yàlla dëppala ñoo ngi njëbug alquran wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain te it képp koo xam ne am na ak sa ci autorité yi war na wax ak ñoom soo demoon armée li Yoff bi féetee ouest nii ceeru armée li yépp presque dañ koy def réserve réserve amoon na mi ngi commencé woon di am at yi yépp par nank-nank par nank-nank mais nag niñ ko jëlee temps yi dafa jéggi dayoo am na espace boo xam ne daanaka xaw na yaatoo presque comme jàkka ji wala muy ëpp yaatooy jàkka ji presque ci diiru un mois wala deux mois lañ jë- dagg yépp def ko réserve réserve donc loolu nekkul lu jaaru parce que cimetière yi dañ ko def pour ñëpp dañu ko war a bàyyi it pour ñëpp tey jii boo demoon cimetière yi baqiya depuis jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey ñu ngi fay suuf loolu daal kon mbir la boo xamee ni nii niñ koy defee suñ jamono tey jii day jaaduwul te it autorités yi képp ku ko yëg war nga fexe ban pexe la ñuy mën a jël ngir arrêté loolu ndax buñ ko deful fii ak quelques années yu néew cimetière Yoff dana fees te la chaque année cimetière Yoff waa Ndakaaru mën nañ leen fee suul ba ilaa yawmi diin loolee ba tax ba ñu ngi rafetlu toujours mboolem ñoo xam ne dañoo nekk ci réew mi te ne seen i armeel kenn du ko tabax loolee képp ku ko def ñu ngi koy sant di ko gërëm mu bokk nag loo xam ne nii spécial la bu ñuy wax toujours spécial la ndax boo demoon tey dëkk mel na Ngor ñoom mosuñoo tabax nuñ duñu nangu ko tabax mais boo demee fi ñu wax Yoff Mbelalaan nga xam ne mooy première cimetière bu mag bu lëbu yi am fii Yoff Mbelalaan dañoo xëy xëy bis ne tabax yépp dañ koy toj ñépp yem mi ngi noonu ñu xëy suba toj tabax yépp boo demee ñépp ñoo yem fu ñuy suuf mbokk loolu mooy sunna loolu mooy diine mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal bu dee ne mbokk yi kon yaakaar naa ma des naa doy loolu yàlla na yàlla defal ñu tawfiq fi dunia wal axira barakallahu fikum